mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu jëkk ci suuratul gaashiya inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله نجي سنتر سنبروم ci xéewalam yu bari yi bokk na ca dëppale gim ñu dëppale ñuy tiim ab téeréem tiime ko ci ab néegam ci biir shahru ramadan loole suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ca ay xéewal yu bari ak mbég yu bari ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul niñ koy waxe it mooy ña nga xam ni ñoo koy déglu ca teewuñu fi ñoo ëpp ña nga xam ne ñoo fi teew ñooñu tamit yal na yàlla boole leen ci ñi nga xam ne seeni xol day aju ci néegu yàlla ya ña nga xam ne ñoo leen koy jottali it di mboolem groupe yi ak site yi aju ci jàkka ji ak suñu télévision bii di Islam TV ñi ngi ñaan yàlla na yàlla fay leen te fay képp ku leen di jàppale kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suñu boroom jalla wa ala mu ne hal ataaka xadiisul xaashiya amoo ndax dikkal na la waxtaanu la nga xam ne day yiir lépp day muur lépp wujuhun yawma idin xaashia ay kanam bi si keroog day dana doon lu torxlu aamilatu naasiba yu liggéey sonn ci liggéey ba tasla nooran xaamiya doonte ne ne dees na ko tabbal ca sawara boo xam ne bu tàng la tusqa min aynin aaniya dees na ko nandal ca ba ci ndox ya nga xam ne ni aaniya la mooy fa tàngay mën a yem romb na foofee laysa lahum taamun illa min daria du leen faññeel lu ñuy lekk lu dul lu ñuy tuddee daria di façon lekk boo xam ne ni ay dégg rek moo ko wër doonte ne ni misaal la waaye la am alaxira dara amu ci àdduna laa yusminu wala yuxni min juu suñu borom mu ne loolee day du leen duufal mi ngi noonu ca du leen jëriñ ca xiif ba ñu xiif wajuhun yawma idin naima doonte ne ba këroogee dana am ay k ay ay kanam yoo xam ne ña nga doon kanam yu naat ay yu békk fii ni ngi naam li sa'yiha radiya ngiree jëfam ja nga xam ne nii doon la jëf boo xam ne bu ñu gërëm la mu nekk di gërëm ay jëfam fii jannatin aaliya muy nekkit ca àjjana joo xam ne ju kawe lay doon la tasma'u fiha laaxiya àjjana joojee kenn du fa dégg lenn loo xam ne nii ay luy itteel nit ki la ci puukarewu wala ay coow fiiha aynun jaria dana fa am ay déeg yoo xam ne ña ngay daw mi ngi noonu fiiha sururu marfua dana fa am ay lal yoo xam ne yu kawe la ñuy doon wa akwaabu mawdua ay kopp yoo xam ne ña nga nekk ak seenu naan di loo xam ne lu ñuy teg la wa namaariqu masfuufa ak ay coussin yoo xam ne ña nga leen rangale wa zarabi mabsuusa ak ay tappi yoo xam ne ña nga leen tasaare mi ngi noonu ci biir àjjana ji mi ngi noonu mbokk saar bi niñ koy waxe woon démb suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam bari woon na di ko boole ak suratul ala di ko jàng ci place yu bari sawaun ajjuma ya la wala iit ya la ak yu demee noonu suñu boroom di ci wax mbir boo xam ne mi ngi ñëw suñu kanam ca mooy allaxira nga xam ne bu ñëwee tiitaange ba day muur jaami yàlla yépp gannaaw ba nag yàlla dog koo teggil te ña ko soob yàlla na yàlla booluñu ca te loolu mooy njëlbeenu ajjana yowmal qiyaama mooy mucc ci sawara suñu boroom mu ne fa man zuhziha ani naar wa udxila aljanna mucc ci sawara rek xéewal la tey jii bu doon sa doom day tukki ñu naa bis bu mu duggoon kat dafa dajeeg camion nangam dee nañu yow bi nga ñëwee fekk moom mu taxaw dara jotu ko loolu xéewal gu rëy lay doon mooy mucc na ci nattu ci musiba allaaxira it bu ñuy demee tiitaange ba ñépp lay muur amma nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñami baaxee mu teggi ko ci ñoom ba keroogee daan gis ay kanam yoo xam ne ña nga jatt seen loos ya toroxlul borom bi rëccu gu nekk ci ñoom bu ko defee ñu force leen ci biir sawara ñu fay liggéey liggéey yu metti te mooy léeg-léeg ñu yóbbu leen ca lakk ga ca ndox mu tàng ma ca yax muum ba ca bolde ya ca ca mooy dañuy nekk di jaabat yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan ñooñu nga xam ne sawara bu tàng moom mooy seen wàccuwaay loolee mbokk da ngay gis suñu borom yàlla mi ngi ci teg gannaaw sawaroo tàng wi gannaaw coono bi yépp la nga xam ne moom la ñu fay naan mooy ndox moo xam ni ndox mu tàng jër la ndox moo mi di xamim boo xam ni suñu borom nee na buñ ko naanee faqat taa am aahum dana xotti seen put xotti seen butit daggate ko tuuru ca suuf ca borom bi subhanahu wa taala it nee na lañ fay lekk di dariya di lekk googee mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na nekkul lu leen di jëriñ ca seen xiif la ca mooy dañuy lekk lekk ga di xotti seen pud ya taaman za gussa bu demee xotti butit ya bu ko defee gannaaw ba tuuru nekk dëtt wala leneen malaaka yu roofaat lekk en permanence la ñuy nekkee naan en permanence la ñuy nekkee mi ngi noonu muy mbugal mu tar boo xam ne day continuer loolu mbokk la shakka fihi am na nag lenn ci borom xam-xam ñoom li ñuy firee mooy wujuhun yawma idin xaashia amilatun nasiba loolu mooy nitu bidaa yi ak nitu mushrikuuna yi nga xam ne dañuy nekk ci diine ji di sonn ci diine yàlla ji waaye nag di ko bokkaale te ji wallahi bul dem fenn demal Sénégal rek day gis ay mbooloo yoo xam ne tey jii du ñu julli du ñu woor nee nañ ay jaami yàlla lañu li ñuy daj ci diine ji ci bay ay tool ci joxe ay ay ay alal ci ci na coono bu dul jeex yow dajoo sax dix pour cent bi ci diine ji et pourtant ñoom jàpp nañu ne kenn du leen jiitu àjjana te yow mi xam xam diine xam nga ñu ne lii nga xam ne du dara mooy musiba kese la mi ngi noonu am na benn imam bu nekkoon fii ci 22 imam Ndiaye yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko ne dafa fekk benn mbooloo boo xam ne dañu ñëwoon bay si benn tool ak seen kattan tool bi lu ci benn suba bay nañ lépp borom tool bi na leen yal na leen yàlla fay ñu ne ko sëñ bi ba bëggee ñu kontaan bu ñu fayloo yàlla waxuñu yàlla sëñ du fay gis ngeen et pourtant nee nañ ay jurit lañ loolee kon coono ba ñuy daj sonn guddi sonn bëccëg ci foo xam ne du du fa ñu war a sonn du leen jëriñ dara moo tax ñu ne Omar ibnul Xattaab mas nay tukki romb benn labbe xam nga labbe yi lañu tudd ermi lañu tuddee ermitage dañuy dem ci àll bi ber fa seenub néeg nga xam ne du ñu am kenn affaire di jaamu yàlla rek Omar bi mu ko gisee mu daal di jàng aay bi te mooy ñu bëri ci nga xam ne dañuy bokkale ak seen boroom wala sax ci ay bidaa coono bañ ciy det dara da leen dul jëriñ lu dul tàbbaleen sawara rek mi ngi noonu looloo tax ba seytaane li ko gënal ci doomu aadama bi biddaa moo ko gënal bakkaar ki nekk ci bakkaar moom xam ne ne mi ngi ci bakkaar mais ki nekk ci biddaa day ñaan yàlla rey ko ci loolu gis ngeen loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal lii mooy xaar benn mbooloo ca ca sawara mooy ñi jaarul fi neex yàlla waaye gannaaw loolu suñu borom mu ne dana am ay kanam yoo xam ni ñoom ña nga bég lool lu ko waral mooy jëf ba mu doon jëf moom ba mu ñëwee fekk na yàlla gërëm na ko moom it gërëm na ko mi ngi noonu radiyallahu anhu wa radu anhu te mooy jëfoon na lu dëppook ngërëmal borom bi jàlla wa ala looloo tax seen kanam yaa nga naat borom bi nee na àjjana yu kawe la ñuy nekkee te mbokkeet àjjana mi ngi noonu te ji buñ naan ab gratte-ciel am na benn waay bu bew su ne tey bu demoon Dubaï dañ naan gratte-ciel bi fi gën a gudd ça fait huit cent mètres am na ku bewoon nga ne woon day def moom un kilomètre et demi ci Arabie Saoudite bi techniciens yi xoolee gauche droite ne loolu mënut a nekk mu ne kon day def rek lu ëpp un kilomètre dana ko def mooy mille un mètre loolu lépp pour wane kattanam ay mbokk loolu te moo ñaan dem àjjana rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da ngay gis koo xam ne dana nekk ci benn xayma ci ci àjjana guddaayam ba day nekk quatre vingt dix kilomètres mi ngi noonu quatre vingt dix kilomètres àjjana nga mën a toog sa nguur ngay xool plus de doxu ñaari junni at kon su dee ne rek ak kawe fexeel dem àjjana mu nekk it ay darajaat yoo xam ne nii nekk na téeméeri daraja daraja bu nekk moog moroomam day toll ne ni ngeen di seeni biddiw yi ci kaw asamaan gis ngeen loolu la borom bi subhanahu wa taala jege jannatin aliya mu ne àjjana jooju day fa dégg laaxiya laaxiya mooy lépp loo xam ne boo ko déggee rek mu naqari la du saaga du wax ju ñaaw du waxu shirk du waxu lenn bruit buy buy buy buy buy buy tànqal léeg-léeg nga dem ba bëgg a tëdd nelaw gis nit ñi taal seeni musique wala nit ñi yor seen micro ne dañuy jaamu yàlla yuuxu yuuxu say nopp doo dégg am naa nag aljanna lenn luy perturbé ah ci wàllu bruit kenn du ko dégg ci biir aljanna mi ngi noonu doo ko dégg doo ko gis borom bi mu ne dex yee fa nekk ma ngay daw dex yoo xam ne yu bari lañ ci borom bi wax dama suratu muhammad wax nañu dex yi lem ya dexi sàngara ya dexi meew ya dexi ndox ya gannaaw ba wax nañu yeneen dex tasnim sarsabil ila axiri borom bi subhanahu wa taala nee na ña nga tëdd ci seen lal yu kawe ya kawe ga di nekk ñaari maana mooy kawe ci naka suñu borom defere wala lal yoo xam ne nee na batainuha min istabraq li gën a cher ci kaw suuf mooy suwa nee na waa aljana seeni lal suwa la ñuy jiital doog caa teg la ca kaw la ca kaw moom yàlla waxu ko waaye lañuy la ñuy jiital rek ca lal ba nee na suwa lay doon gis ngeen lal yooyu nga xam ne nii ah mawduuna suñu borom yàlla subhanahu wa taala da koy rabbe ci ay perle ak i or kon ci wàllu valeur am lu kawe la donte ne it kawe na kawe boo xam ne nii nu mu la neex nga koy yëkkati nu mu la neex nga koy wàccee mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nee na seen kopp ya ma ngay tege ay heure boo soxlaa naan rek lii di wil daanal mu xolla lu ñu ngi la wër ak façon loo bëgg ci ay naan du teggeeku mukk mi ngi noonu borom bi nee na ña nga nekk suunu ca seen coussin ya mooy njegenaay yu mag ya ak coussin ya nga xam ne waa aljanna mbokk ay buur la ñuy doon ay buur la ñuy doon doonte ne àjjana it bii su ko xoolee rek ci ne nit ñi dañuy toog benn place rek di lekk ko naan déedéet àjjana ni ma leen waxee bu dee ko fa gën a tuuti nguur dafay am suuf bi plus de dix fois sa nguur da ngay xool plus de doxu ñaari téeméeri ñaari junni at loolu kenn xamul ñaata la moo tax suñu borom yàlla da leen fay may ay waruwaay yoo xam ne yàlla ko xam xamaguñ ko fu la neex dal ci biir aljanna da nga am tey jii sunu maam yi nga xam ne boo delloon rek tey un siècle ci gannaaw di expliquer sunu maam yi lii di avion lu leen di jaaxal la tey ñun alhamdulilah alhamdu yàlla may nañu ay matuwaay yoo xam ne da ngay ndékkee Dakar ba suur dem reere ji Makka kon it aljanna yàlla dana fa def ay waruwaay yoo xam ne suñu borom mu ne alhamdulillahi alladi awrasana al ard natabawwa'u min aljannati haysu nasha foo bëgg a def rek daa defa yegg ci saasi mi nga noonu amul ay trajet huit heures de temps dix heures de temps la wallahi da ngaa bëgg a dal Amérique ci saasi Russie ci saasi ci gàtt ci misaal rek donte ne aljana mooy aljana ci yaatuwaayam kon borom boobu subhanahu wa taala it nee na tapp yi mi ngi noonu ñu tasaare ci biir aljanna te muy décor boo xamee ne nii la muy woon rek mooy nguur gu màgg ga fa nekk waaye lii lépp lan moo doon sabab bi mooy li sa'yiha radiya mooy jëf bu mu jëfoon dafa nekkoon jëf boo xam ne yàlla da ko gërëm gërëm loo ko ko yàlla na yàlla yombal ko ci ñun
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat ewa ñi weddi alaxira xanaa gisuñu ci gëléem niñ ko binde wa ila samaa'i kayfa rufiat ak asamaan niñ ko yëkkatee wa ila al jibaali kayfa nusibat ak li nga xam ne mooy montagne yi niñ ko sampe wa ila al ardi kayfa sutihat ak suuf si niñ ko tallale fa zakkir innama anta muzakkir eway fàttalil yow doo dara lu dul fàttalikat kese lasta alayhim bi musaytir nekkoo ci ñoom koo xam ne yaa leen di saytu ba ñuy jëfee ndigal yi loolu kenn santu la ko illa man tawalla wa kafar lu dul koo xam ne dafa wëlbatiku ci ay jëfam weddi ci xolam fa yuazibuhu allahu alazab al akbar ku mel ni day yàlla dana ko mbugal mbugal ma gën a màgg inna ilayna iyaabahum ñoom ñépp ci ñun yàlla la ñuy dellu si summa inna alayna xisaabahum gannaa ba ci ñun yàlla la war la nga xam ne mooy atte bañ leen di atte ay réglé bañ leen di réglé mi ngi noonu moo ko suñu boroom ngiri wane kawtéefam ci lu bari ci doomu aadama yi di xalaat te mooy ñuy weddi dëkk yépp seen raison mooy lan nit ki bu dee day nëpp dugg ci biir suuf nekk poussière loolu ban kattan moo ko mën a dekkal suñu boroom day won ci nit ñi loo xam ne ñépp a ko mën a gis rawatina fi alquran doon wàcce alquran du simple la lay wax bu doon day wax ay données scientifiques yenn yi loolu nga xam ne zéro virgule nangam ci nit ñi ñoo ko mën a xam waaye li muy wax moom ñépp a ko mën a remarqué mu ne xanaa gisuñu ci giléem yi ni ñu leen bindee mbokk giléem nekk kawtif bu rëy bu yàlla may doomu aadama rawatina dëkki naar yi ak yenn dëkk yi daanaka mu mel ni gaal guy dox ci kaw suuf ay giléem mën na yenu lu jege ay cinq cent kilos da mën na dox plus de mille kilomètres ci désert bi mën na traverser ay montagnes mën na traverser ay beeñ su demee ci montagne am na nu muy pomper ay tànkam ba mën ko traversé bu demee suufu beñ day peeral tànk yi am na foo xam ne sax mën na dem bay raam yàlla may ko résistance mën na toog plus deux mois du naan yàlla may ko li ñuy tuddee orientation li nga xam ne mooy naar yi bu ñu masaan dem ba ci désert bi réer dañuy jël màggatu giléem gi rek jiital ko bàyyi ko topp ci gannaaw mooy dem bi gindi leen teg leen ci yoon gis ngeen booleeg ay yeneen yeneen yeneen yu suñu borom yàlla def ci moom ci ay xéewal ba pare yàlla tàggat ko mu diggal doomu aadama mi ngi noonu loolee boo soxlaa ñëw rat naan heure boo bëggee lekk ñu ñëw tëdd rendi mu nangu nga rendi ko téeméeri giléem benn xale bu ndaw mën na leen jël yóbbu leen fii ba Tamba loolu lépp te pourtant noonee itamit la amee jom amee bañ ko ko tooñ ba giléem boo ko tooñee lu mu yàgg-yàgg bu la jekkoo rek def la lu bon gis ngeen su ko defee ñi ko xam ñëpp dañuy xam loolu loolee mbokk ay ay ay mbir la yoo xam ne suñu boroom mi am kattan def lii ndax yow boo ci xalaat doo xalaat ni yàlla mi lu na mën na ko am déet yéen caamin yi gars yi ñu ne gileem saar la sant de ñu noonu ala kulli xaal suñu borom subhanahu wa taala bi mu waxee loolu ba pare mu ni xoolal montagne xoolal suuf mi ngi noonu xoolal suuf xoolal montagne yi bokk wala boo xoolal asamaan tey ki nekk ci àll bi àll Arabie Saoudite bi àll Mauritanie àll giléem yi giléem yaa ngi nii gannaaw ba asamaan xooloo asamaan asamaan moom ñëpp ci bokk yam dëkk yëpp am nañu asamaan doonte ni nit yi tey xoolatuñu asamaan waat na ne gon ak Ndakaaru su waxee rek ak sincérité kañ la gëj a toog di xool vidéo asamaan yi ndax mos naa am ngay wax wala boog ay ati at mi ngi noonu to telluñu ko yaa ngi dégg seen mbir yëpp mi ngi ci suuf waaye mbokk asamaan boo koy xool nga xool li ci yàlla def ci vidéo lever du soleil nga gis jant bi ni muy génnee nga gis ko muy yéeg dem nekk ba ci kaw ngay xool couche du soleil loolu yi rawatina boo nekk ci wetu géej wala bétu àll taar boobu mu taaru yàlla rek moo ko xam mi ngi noonu lu nekk rek ba loo miin nag dootu ko bàyyi xel yàlla mos a def ma fanaan yi dëkk bu ñuy wax ne lañu fi club aljana nekk ay guy dafa fees bi ñëwoo fajar maa ngi taxaw ci wetu géej gi noonu yàlla dogal jant bi fenk mais jant bi ni muy fenk ci biir guy yi ci géej gi taar boobu kenn mënu la ko nettali nga dem ci biddiw yi xool xoolal weer wi ni ko yàlla defaree moo tax xooluñu asamaan yàlla ni mu ko yëkkatee nga wëlbati ko ñëw ci montagne yi ni ko yàlla sampee nga xam ne nii borom bi yëkkati ko ba demee ay lima limalaya dem ay presque huit kilomètres ci kaw mi ngi noonu kawteefu yàlla yu yu yu mag borom bi suuf si xoolal ni mu leen ko tàllalalee mi ngi noonu ngeen samp immeuble yi bay tool yi mën a dox borom bi xaral leen ci ay yoon xatta montagne yooyu da gis benn chaîne de montagne boo xam ne mat ne dix kilomètres suñu borom xar ci ay yoon ba dëkk yi di mën a communiquer ci gis ngeen fi jaajan gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala mu ni lii lépp maa ko def ngir doomu aadama xellu ni yàlla mii indi doomu aadama ci kaw suuf yombalal ko fi bii yombal yépp innahu ala kulli shay'in qadir lépp lu mu wax mën naa ko mën na ko amma nag yow yonent yàlla bi fàttalil yow doo dara lu dul kuy fàttali du yow laa sant ne yaay fexe ba nit ñi jëfi diina ji déedéet loolu yow sa yoon niwu ci yow daal fàttalil la nga xam ne nii moom mooy sa warugar mooy nga fàttali aji waaraate bu nekkit looloo ko war yow waxal rek sa jan wàcc na ki ngay waxal mën na am gëmu la topp la waaye yow si jaan wàcc na mën na am it wax ja ngay wax fa nga foogawul woon ak njub ñooñe yàlla jubal leen bal ki ngay waxal tey mën na am nanguwu ko waaye buñ demee ba ci kanam yàlla subhanahu wa taala mën na ko gindi fekk say wax moo ko gindi mi ngi noonu xam na benn soxna soo xam ne nii bi muy xale bu ndaw dana ñëw fii ci jàkka ji ñu koy tudde Mariama Mbay mu dee ci ndawam yal na yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko wante ne ne dafa nay étude yi tubaab yi def yépp am ay diplôme kawe mais teewul diineem da koo ñoroon moom benn xaritam bu jigéen mu nekk France mu koy topp diw muurul diw muurul kooku déggalu ko déggalu ko bi yàlla dogal ba soxna Mariama faatoo keroog la commencé muuru ba suñ jamono tey xoolal te li muy dund yëpp ñu ngi koy sant nangul muuru mais dee gi yàlla dogal ci Mariama loolu kooku moo ko delloo gannaaw loolu moo tax waaraate del waar rek ku mën a doon waar rek waxal rek waxal rek résultat ba loolu mbir yàlla la du sa problème yàlla sant la loolu ma anta alib musaytir borom bi nag nee na képp koo xam ne dafa wone gannaaw daal di weddi la koy xaar moom mooy mbugal moo xam ne mbugal ma gën a màgg la ca mooy loo xam ci lu màgg ci àdduna ci mbugal rek xamuñu la ko gën a màgg ma ngi lay xaar àllaaxira loo xam ci lu màgg ci àdduna explosion boo fi dégg ay lu mu mën a doon xamal ni la ko gën a màgg ma nga nekk àllaaxira borom bi nag ne ñoom ñépp ci man la ñuy dellu te ñoom ñépp man yàlla maa leen di xisaab ñu ngi noonu xisaab lan mooy xisaab mooy lépp loo mas a def ci kaw suuf suñu borom yàlla dana la taxawal mi ngi noonu xisaab la ca bokk na ca yenn loo xam yonent bi alayhi salaam tudd na ko sa dund gi dañ la ko laaj sa ndaw gi dañ la ko laaj alal ji nga yor foo ko jëlee alal ji foo ko dépensé li nga xamoon loo ci jëfee yi yépp dañ la koy laaj gis ngeen su ko defee doomu aadama bi waajal boppam loo Omar ibn al-Khattab daan wax e waay xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu e yéen nit yéen a ngi dund ku nekk ci yéen nay wéttim nekk xisaab boppam waa tey jii su ma dee woon tey ndax sama warugar def naa ko sama digganteeg sama borom sama digganteeg sama njaboot sama alal ji ndax li ma war maa ngi koy def la nga ca mën a xam ne njuumte la nga redressé ko bala ngay dem yow man xisaab suñu borom yàlla jëlee xisaab te boobaa dellu gannaaw fekk c'est trop tard yal na yàlla xisaab ñu xisaaban yasira jéggal ñu ca yërëm ñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane